mbay mu di leen seet si seet si googa itam ñooñu ñooy sunuy bokk mu ñëw Ablaye Mbay sëñ Ablaye jël na doomam ñu di ko wax euh, Mara Mbay Góora Mbay euh, sëñ Ablaye jël na doomam ñu di wax soxna Kinne ñooñu ñooy sunuy bokk kon sëñ Ablaye daa ñëw dugg suñu biir kër ba noppi nag fekk si nu ngaa xam kër Saliou ndjay bi mu ñëwee ñu ne sëñ ablay doomi sëñ doomi sëñ waa mi ngi ci dëkk bi mu ne ha ñu ne mu ne waaw mu ne ah kooku de ko kon dina ko xiyar te way fam nga ak mbax ga ak yaatu ga daa jog ñu and ak mom ñëw kër Saliou ndjay mu siyaarante ak sëñ Abdoulaye yëkëti addu ju am solo jox ko ci wat ci kër gi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 sëñ la wax lolou mu ne ko waxal loko koy jaay mu ne ko nangam mu daal dinde fe ko du waxale bañi dem nga xam mu jeul bu moma def ko ci ci ci ay malam bi mu siyaré seigne abdoulat ba noppi mu dal di wat mbuma yëkëti ko jox bay ma ciow ni ko demal joxal mako seigne abdoulat seigne abdoulat bi mbuma jox ko mu téyé ko ah man de wax dëgg yalla ca mbaxam gu rëy man de wax deug yalla mbu mu mu rafet ni musuma ko gis waxuma la nak man abdullah mam ko bañu toge ba julli takusan ba nopi mu momit de cheikh seigne ablaye sëñ Ablaay la len yalla bolé ñu takante fa ay kóllëre mu ñëw fekk seigne ablaye ñu defal ko mbaarum seng mu rafet mu necc mu seigne ablaye seigne ablaye tok ne ko sa keur mu ko man de amu fi keur mu ne ko nañ la wutal keur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 ñoo ci bâtiment bii bii ngay seen noonu ci booba daa pare te kenn dëkkagu ci ma ñëw defaral ko ko àndaat dellu mu ne ko sëñ bi bismillah nu jiitle nun ñett ba ci saal bi ci dal bi mu ko sëñ bi dal baa ngi nii mu ne ko ah eh, sëñ bi dal mu ne ko waaw waaw quoi sëñ bi dama fay jaaroon doon la jaal sëñ bi rek te bëgg a dem jàll dakaar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 sëñ Ibrahima Seck nag mi nga xay moo jaboote fii dafa doon nit ko social koo xam ne nii itam li ko ci gënoon intéressé mooy ubbi digganteem ak kilifay diine yi te ko ci inamal moom yi noonu ixwatun faas dafa bay na axawaykum bu dee diggante ma bàyyi xalifa Ibrahima Niass sëñ Ibrahima jokkoon na ko ba diggante ñaseen ak cana ba nekk relation bu dëgër bu dee diggante euh, fii ak Tiwaawan kasalik de digënté fi fii ak Laayeen kasaalika ni yëg ni ngir yëg ni chamef gi ak njabot gi ñoko bokk itam la jokki won sëñ abdallah ba xey fi bis rek seeti ko e Belal abdallah ba ka tok rek ñu ni ko amna na ku lay ñu ni kan mu ni sëñ Ibrahima comme ni mag Jaañ waxoon exact mu ni koku dama yakkan ne may nax daal dalal sëñ Ibrahima waxtaan mom ni ko mo sëñ bi lu andi fi mu ni ko sop la rek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 sëñ Dame daal di xëy na woo gi yeb xawal leen sëñ abdullah Lahad ne dina fi ñew dimanche bi di ñew bu delu se ba delu sa ndax ñew na fi bi suma joxul won bisit dama ko baye mu dem nag sëñ Abdou Lahad sëñ Ibrahima nag da nit ko xam bi muy dund fi ci commune rural bi ci fi ci département Thiénaba bi ku fi mourid ku fi xaadir ku fi talib tijaan ñëpp mo leen jaboote woon tubarkalla mu daal wote nak nag ko ci yegalé ko ci commune rural bi yëpp 38 villages yëpp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 boo jàng alxuraan dégg fa kayfa is jinaa bi kulli um, min kulli ummatin bi shahidin wa jinaa bika kenn ku ne ña jaboot di nga leen andi ci njaboot ci yonent bi salaa salaam seede leen waa yonent bi àndaat seede ñëpp moo tax kenn ku ne euh, dëllal càmmaa càmmee fam xereñal ko pour boo liggéey njaboot gi nga jaboot te boo leen dee présenté yonent bi ñu mat ko sëkk ñu mat sëkk ñu mën a seede. ku la nag diggante sëñ Ablaye ak ak ak sëñ euh,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 léegi nak jox ma cent mille francs pour ma bindal ko ne eh, eh, Serigne pour directeur OFO bari Bima ko bi nak ko waxee nag ma daal di ne dépassé na ma kon nag sa kayitu lettre ngi nii papier en tête ba ngi francs wal keneen man munu du ma def loo ma santul mu kontaan lol bim mu lol dadi wo waji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 moo adjoint Bruno Diatta ci protocole Mac Bamba Crespin ñu doon jël participation waa présidence ci projet bu ma projet un milliard et quelques bu ma amoon Bamba Crespin nag ñëpp présidence ñëpp jox nu seen participation bi ñu joxe ñoom participation mu nek addiya ju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

moo moo moo ko njëkk a taxawal. wala de woon doon na dox digganteem ak sëñ Ibrahima ba ginnaawam sax kër gi ndax sëñ Ibrahima dafa toogee woon ci siège social ba kër gu mag mais tabaski mi mujj andi fii dañ màgg jaañ mi la ko yeewloo ba pare ñu génn rek otoom ñëw andi alum tabaski ñu ni ñu ni moo dem ni bàyyi sëñ Abdoulaye yónnee la fa xarum tabaski xarum tabaski kër ga ma ma yeewoon.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 xëy na xanaa yàpp ngeen dul am waaye sax yàpp ngeen ko am ndax ñi ngeen dëkkaaleel ak seen i mbokk waaye na leen wóor ni am ngeen tabaski ndax yent yàlla muhammad de ca yërmande ga rendi woon na ñaari xaaf ni bii pour man la bi si des ci pour ku nekk ci sama xeet wi te amuloo tabaski bi wa yowmal qiyaam kon yow mi amul tabaski sax yaa ma wan gan yaa ma war a gën a dal xel gën a dal xel ñi nga xam ni am nañu tabaski نخ يانجي تبسكي خملون نخ يالله نانقول نلا ولا دي تياو ينتي على محمد يالله نانقول نك كون نانقول نلا يومي أمول بسم الله سيتم بي حكمة سيتم بي خم خم سيتم بي شريعة نجيس بوني نيدلبو حكمة حكمة مريونا لاجي نمو دان ديف موم موي طالبي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 هنا هنا يعني ان تنصروا الله ينصركم بونغين ديملي يالا يالا ديملين ام نمو كفري يالا ني اوتالين ما لاي ما ديملين غدي مو ديغ القران خلوم ييب نا تي القران لا بودي خلو ولا موي واخ دغ ايا القران لا اندي te xuloo sëñ Abdou du dara lu wax dëgg xuloom wax dëgg rekk euh, ku déggoon alquran la sëñ Abdou déggoon na ko lool ba tax na ñaare bu masaan firi ay ayatul quran yow da nga ciy jëlee njëriñ loo xam ni ndeke yow dégge woo ko woon noonu gis nga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 sëñ Abdou Lahad daawu ko firee sa xol dëgëre ci mukk mais mu ko daan fiire mooy dëgëral sa lay ngir dëgëral sa lay yonent bi xolam dëgëral na ba pare dama bëgg nga won ma nan ngay dekkale néew yi yàlla ni ko ah yow da gëmul Munika bala walakin li yatma'in qalbi gemna waye dama bëgg lu dëgëral sama xol moom moy moy saayur ay bi sëñ Abbas lima fofu foofu dañ nit ñaa ngi firi firi bu bon waaw mu ni ma yent yalla Ibrahima xolam du rëgg-rëgg mukk li yatma'in qalbi moy lu dëgëral sama lay nika kon de muy firi ga sëñ Abdoulaye firi woon fale rek mu ne ma ngoog mu ni ma te li laa wax ni dëgëral la yoon la demal ca kanam nga seetati alam tara illa xaaja ibrahima fi fi rabbi fan la mujje fa buhita allazi kafara comme moom ka doon werenteeg moom muy Namruud mujj na torox wejam na nu dëgg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 وحدم عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن دال سي تك نانك ومن اوفى بهذه من الله لول كون دوغال نانو سي بير دار دار دورا واخ نك ني فاستفسيرو بي بانيتو موليسي بايتو بي بيغ لين سي جاينت جي nga xane جاينت ген كو ngir moy wasaliko wol fawsan asim دورا واخ ني لا خضر لي الله ان المؤمنين اشي بايي هنا كتا تا سجيرتي كون لول مو وور لين تيغ ني جاينت جي لو ام جارين لا لو وور لا لو امانا لا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 لا يال دون واخ يونسيال ادريس نا واسكو في الكتاب ادريس انه كان شديقا نبيا ورفعنا مكان عليا سي عبد الله نكو نكو سانسير كو دغ بو خامن ني مو تخون يالا دون كو ييكتي دي ييكتي تورم ييكتي اي جفم دي ييكتي اي مباخم من نك تم تبارك الله غيس نكو لولا لولا مو يوي تا شديق نا موم مو نيك مو سيتي يونتي إيه، اولئك الذين انعم الله عليهم من نبينا والشديقين والشهداء والصالحين واسن اولئك غلفيخن سالك الفضل من الله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 sunu mag ñi ñu nyep fi ñepp ay xaritu sëñ Abdou lañu won bokku na ci Alpha Mamadou mi mom ak sëñ Umar Saxir Lo bokkon nañ benn daara di ca jang mok sëñ Alpha bokkon nañ lal di ca teud daana baye bañu teud ci pass pasam ba ñepp teud mu taal auto mom kese dawalal bopam ñew fi waxtaan fi ba fajar mu ne sëñ bi damay delu pour may jité juma ja ndax bëgguma kenn xamne di ñewon nak bokku na ci lu daan jamono yoyu yëngu-yëngu amon na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 lu ñuy jiite ci senegal rek mën nañ koo jiite dara du yëngu kon nit bala nga buñ nee nit ku baax bu sa xel rafetee dangay ngay bari ay àndandoo ay xarit boo baree alal da ngay bari àndandoo waaye bu sa jikko rafetee nga bari turandoo. exemple bi bi muy jàppale woon Abdou Diouf te nit ñi di wax lu tax sëriñ bi di wax loolu ci rajo bi di jàppale Abdou Diouf sëñ Ablaat ca ngoon ga mu ne man du ma wax la di ko teg ci bakkan.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 te sëñ Ablaay motoon na wéeruwaay motoon na kuy wé kuy kuy boroom gannaaw eh, te moom lépp loo xam ni sëñ Abdou Lahad mës na ko yëkkati nattuwaay la am moo doon mbiru sëñ Bamba bu dëppoo mbiru sëñ Bamba xayrun bu dëppoo la moom woon ko gannaaw mooy gendarme yooyu pour defar dëkk bi sama doomu baaya nga ca woon Badara Cissé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 mu ne li mu xam mooy ci saa si le président nee na boo fekkee weer wu jot nga jox ko benn libidoor boo ko joxee libidoor bi weer wu jot nga jox ko benn libidoor nee na benn weer nga tëb ko nee na bu ko neexee mu ne la ah man de musuloo ma defal dara nee na yoonam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

maa la rek président Senghor moo wax ni moom bëgg na sëñ Abdou Lahad ni ko tax mu ni pa ngir lu nekk ci moom dana ko wone moo nu ko wax président Ousmane Camara ngi toog Maguette Lo mu ni moom bëgg na sëñ Abdou ndax daal moom gis na ni nit la ku lu nekk ci moom rek dana ko wone waaw kon nag loolu seede la boo xam ne seede bu rafet la. sëñ Abdoulaat bi ñu mujjee gisee daf ma nax daf ma nax parce que wanu ma woon dara benn siñ ne day dem mais dañoo toog suñu bureau Abdou Diouf wax ma ne ma sëñ Abdoulaat nee nañ jóge na fi mais donc demain lañ cay xëy.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 mel na ni na leen wóor jëng ne sëñ la nu jaayanteel sëñ Tuubaa la nu topp sëñ Tuubaa mi nu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yonent bi nga topp danaa joxe li ko war ku ku ku jaayante moom it yonent bi nga jaayanteel te ku jaayante yonent bi yàlla nga jaayanteel ina lisini yu bàyyi noona ka inama yu bay noona allaha ma nit ci ni rasoola fa xadaata allaha kon nag diggante sëriñ Tuubaa ak yonent bi laa bëgg nu waxtaan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 yàlla seeral loo naa na la bisub tey def naa sama jëmm ak sama tur muy yàlla donc boo xam ne bii rek day jaamu yàlla bu mag bi yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ila abdihi ma awha tax nga naa subhaana allazi asra bi abdihi layla loolu rasulullah di koo xam ne ku di liggéeyal la ndax yàlla dafa fa mboolem li am njëriñ teg ko kenn ku ne amante ci moom di ko wut kon naka jekk di si ko liggéey ma si ko ma si su ko noppee xëyee la ko gontal ndax ku ne am na loo mënta ñàkk te mu yor ko te ci moom dong nga ko mën a jël waaye moom nag mu wax na bëgg ci yoon bi lan taxutoon mu di ko liggéeyal ñaan ko lenn taxutoon mu di ko liggéeyal lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéeyal amul daxaani li ixdaami nabi busaatihi daxaani ilaa mati nabi busaatihi liggéeyal jëm ci liggéeyal ak tax yoon koy tax yoon bëgg jëm ji rek la dara doolu loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahat mahabati yal muxtaar sayiduna xubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi da u lahu xamdan xadiman lahu mustanari sanada loolu ko ko bind deseeloo kooka lan kon feene ci yonent bi kon bi dama yonent bi natteer li wunu na ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp asalaamaaleykum